الله الله الله الله الله الله الله بورب الماء يا وياي كمال ما منك دي جام سبحان الله والحمد لله لا إله إلا لا سبحان الله وبحمده لا إله إلا لا سبحان الله العظيم لا إله إلا لا قسبي الله لديني قسبي الله لدنياي قسبي الله لمن بغى علي قسبي الله لمن ظلمني قسبي الله عند الموت قسبي الله عند البحث قسبي الله عند الصراط قسبي الله عند القول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم لا إله إلا لا يا حنان يا منان لا إله إلا لا يا عزيز يا جبار لا إله إلا لا رب العزة والجبروت لا إله إلا لا رب الملائكة والروح لا إله إلا لا ويوم بور يا موم سمرو kon su بالما ndax yaa di buur man ma di sa jaam bi gën a buur baal ma jàmm ngi nii bu tooñ yi bare muy yuuxu naan buur baal ma yow yay kamaal ma manke di jaam bul xool ni ma mel buur baal ma تسمى لمن لومو مساواخ لوخو البور بالما تسمى بدي لومو مساخول لوخو البور بالما سمانو بي لومو دغلويت لو دغتول بور بالما sama loxo yi lu mu masalaal lu laaluwul buur baal ma sama tànk yi fu mu masa dem fu demuwul buur baal ma ci sama biir bi lu ci masa dem lu lewulit buur baal ma الله الله الله الله الله الله buur baal ma yow yaay kamaal ma manke di jaam bul xool ni ma mel buur baal ma li ci des yàggatul incha allah yàlla na nu yàlla may wér ak fekkeek tal yéen soppe أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على من لا تتناهى مفاقره ومزاياه الذي إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين ثناياه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وإمامنا ووسيلتنا إلى ربنا شعبي محمد كنت ابن شخص محمد الكنتي ابن شخص بكاي الكنتي ربي بالمصطفى حنا كل سوء من جميل البلاء والبلواء mbokki Sénégal mbokki diaspora bi mbokk jullit yi yéen ñi ين انترنو دي دي سيتان سونيو تلفزيون دي نجاسان Ndiassane TV ñu ngi leen di nuyu fii ci Njaasaan ci turu sunu kilifa Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh Abi Muhammad ibnu Cheikh al Bunaama mi xalifatul aam li tariqati al qadriyati al bekkaayati al bunaamiya di leen nuyu ci turu njabootu kunte yépp waaye di leen nuyu ci turu njabootu Cheikh Pape Medoune Diop ci turu njabootu Cheikh Abdou Diop ci turu njabootu Cheikh Medoune Diop nuyu leen ci turu groupe bëgg Cheikh bu waaye nuyu leen ci turu AFCBD les amis fidèles de Cheikh bu Diop groupe bëgg Cheikh Bou ka nekk ca bopp ba di Sidi Kayta bu Alaji Dudu Kayta ak mboolem membre groupe bëgg Cheikh bu yi fu ñu mën a nekk fii nag ci senegal ak ci biti réew waaye membre AFCBD yi ñu gërëm leen nuyu leen ci turu seen présidente soxna Wolimata Fofana ak mboolem fu ñu mën a nekk ci jaspora bi di leen yëgal rek. sant yàlla ndax ni nga ni daaw ku ne xam na ni ñi ngi ci au cœur de l'événement di bis boobu ñu tuddee woon retour à la source defoon ko daaw le 7 mars ren ñu jàppoon ko le 6 mars sunu borom ñëw ak dogalam mu am lu lëmbe àddina di dogalu sunu borom mu yabal kenn ci càkkeefam yi di mbindeef moo xamante ni mu ñàkk solo la waaye yëngal àddina loolu day wane kàttanu sunu borom. bu fekkoon ñun xam nañu dara waaye wala ñu mën dara kon du ñu naal bis suñu matadi nag moom moo tax xamuñu ni woon lii dina xew mu neex yàlla nag ñu sant ci yàlla lool di wax mbokk jullit yépp ni leen des na ko def nañ ko daan defee rek la ñuy soppi mooy dajaloo xam ngeen ni mënatul a nekk feebar bi moom moo ko waral te suñu état jël ci ay mesures mu nekk loo xam ni feebar bi dajaloo lay bañ ñu nangu dogal boobu nag ndaxte ñoom ñooy ñi yor wàllu kër doktoor di leen topp ci ndigal yooyu nangu ci it dogalu suñu borom te amu ci amuñu ci génnuk réccu waaye nag di yee nit ñi di leen xamal ni euh, beneen façon bi ñu koy defee lu simple la waaye lu am solo la ci ñun bokk na sax ci gën a am solo ci bis bi muy lan kaamilu alxuraan yi ñu daan def alquran jooju ñuy wàcce daan nañ ko def la veille daan nañ ko def ci bis bi daan nañ ko def bu weesoo lu ñu daan def la veille mooy danañu jagleel kaamil ki moom bis bi muy borom njaasaan kaamil yooyu nag lay ñaan ñu commencé ko ca bu ñu nee suba la maanaam la 5 fu waay mën a ne ci réew mi ak ci diaspora bi Cheikh bu Diop mi ngi lay ñaan daara yi ak mbooleem ñi mën alquran ku ma mën a dimbale loo am ci kaamil rek doyul soo ko jàngee ba noppi nga ni yàlla na ko yàlla def addiyey sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam jaar ko ci ruuxu yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam def ko muy yërmande jottali ko cheikh bu muhammad kunta suma turandoo mii borom njaasaan maa ngi koy ñaan mboolem soppee yi di ko ñaan jullit yépp amul qaadir amul tiijaan amul laayeen كيف كي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجلي نان كامل يوي بنيو كدفة كوكو مملا دان دف بلا نيو دوغو تي بيس بي بنيو نيسو بلا بيس بي بنيو نيوي تي بيس بي يت دان دان جانغ القرآن يني كم بولم نيوي جلدي يني كو نيتد تي نجاسان أندن دو نيو نيب دم تي سجيه fa tabaarakallaahu ñaanal way dawla yooyu nga xamante ni ñoom ñooñu ñu jiitu dañ leen di fekki ak ñi nekk ci àddina bi yépp samedi ba it ku mënul ajjuma bi nga defal ma ko samdi bi yéene ko jullit yépp fa tabaarakallaahu bu loolu weesoo daan naa def kaamil boo xamante ni bu nu génnee bis ba dañu koy sante sunu borom kon nag na ma ñépp santale yàlla ci alquran ji nga xamante ni moo di waxam ku ko mënul samdi ba defal ma ko dimanche mu nekk cant goo xamante ni da ngay santale yàlla kii nga xamante ni moom moo di jàmm xeebu bi di Cheikh Bou Diop loolu daal mooy nekk li ñuy def ren di xaar nag lépp luy yëngu-yëngu ñu ñaan sunu boroom ci yërmandeem su jeexalee lii nga xamante ni moom la ñu teg te nga xamante ni lépp coobareem la te ñu xam ni ñun sunu doyadi la ñépp bu nu delloo tuub ñaan ko buur bu bari yërmande la su demee nag ba ñu toll ci war koo def dajale nit ñi ñu wootewaat rek wax leen ko loolu daal mooy kàddu yi nga xamante ni maa ngi ko doon wax te am ci ndigalu suma kilifa waaye di ko wax am ci ndigalu waa groupe bëgg cheikh bu waaye di ko wax am ci ndigalu képp ku ma bokkal li maa ngi profité ci occasion bi di gërëm ñi nga xamante ni ñoom laa seqal mbir mi kenn bàyyiwu ma ci boobaak léegi képp kuy soppe maa ngi lay jot képp kuy soppe yaa ngi may nemmeeku rawatina waa AFCBD ñenn ñi samay xarit samay rakk samay soppe ñun bu ñu toogee toog bi ñu toog ñoom lañ fi nekkal lu ko waral fu ñu toll ñu ngi ñuy xalaat bu nu amul dara lu nu jaaxal ñu dem fenn ku ne xam na ni ba lii amee ba léegi pandémie man maa ngi toog njaasaan li tax ma mën fee toog mooy lépp lu ñu am bokk nañ kook man dañu ma dogal lu raw salaire loolu nag cofeel mënu koo paase kon maa ngi gërëm waa àddina yépp maa ngi gërëm soppe yépp bàyyiwuma góor bàyyiwuma jigéen nit ñi yéen a baax wane na ni sunu ànd yàlla rekk a tax gis nga loo xam ni yàlla tax loola dana yàgg te dana jokkaloo loo xam ni leneen a tax wa muy neen gisal rek contraire bi sunu sëriñ wax na ko daal di dëgg ca xadis ba maamam waxoon Cheikh Sil Muxtaar nee na maa kaana lillahi daama dëhra muttasida wa maa li gayri ilahi mujjabi dajari kon bu nuy jàpp nanu jàpp yàlla lu nuy ñàkkit nanu am yàlla maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziyaar ñëpp di leen ñaanal sutura àddina ak bu alaaxira yàlla na nu ko teewe déwén yu baree bari bu leen umpale ni tamit ñu ngi ci rajab waaye shahbaan la ñuy dugg rajab yonent bi nee na mooy weeru yàlla nee na shahbaan moom mooy weeram moom yoon ci àlla muhammad bay topp ci shahbaan di ramadaan moom mooy weeru xeetam kon nag diggante yi nañ ci profité bu fekkente ni ñi mën a bàkkaar ba mel ni man la nañuy tuub di jéggalu seen borom nanuy bari lu ñuy tudd yàlla nanuy yokk ñi mën a woor ñu woor di ñaan ñépp nag bis yooyu ak weer wi nga xamante ni sama turandoo ci la woon wafaatam muy Shaaban xam nga bu nu jógee ci rajab rek ñu ngi dugg ci chaban ca nisfu chaban fukki fan yaak ñeent ndeysaan sama turandoo ci la wuyji woon boroomam muy tombeek bisam boobu kon nag kaamil yi bu ko kenn dakkal yéen waa sénégal yéen waa diaspora bi yéen waa àddina wërngal këpp cheikh bu mi ngi leen koy ñaan fu fi waay mën a ci cinq continents yi wax jii may wax mën am mu tasaaroo ba àddina yépp di ko gis ndax léegi àddina moom benn kër la fi mu toll nii ngir internet ñu ngi leen koy ñaan na ma ci ñëpp bàyyil xel na ma ci ñëpp bàyyil xel maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen di jéggalu waaye maa ngi leen di wax ni ni ngeen may xalaate maa ngi leen di xalaatee noonu ñu ngi am yu ñu leen di waajal mën naa am buñ ca àggee rek di ngeen ci jot jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf allah allah allah allah allah allah buur baal ma yow yaay kamaal ma manke di ja